mooy juuti Malika ak Kër Massar daje fi ñoo dagal ñaar ñëpp juuti man leen na kenn ku ne téye sa loxo commerçant ak commerçante yu nekk ci marché suufu montagne bu Malika jël dogal ni que duñu fayati benn yoon taxe municipale waaye ñu ciy yokk ni bu dee marché bi daa fonctionné daa fekk ne rek municipalité bu Malika moo ci dugaloon ay loxoom ay senga fi ne woon buñ daan taw nit ñi dañ daan dékku seng yi mairie Malika ñëw tabaxal ñu mbaar mi óol bii maa fi njëkk a teg birig sama kantina nga ne ci ginnaaw ci seen wet askan ba yeewoo ci suufu montagne sax ñoom di naan seen lépp Malika lañ koy defee neuf quartier ñoo fi nekk problème découpage bi neuf quartiers yooyu délégué de quartier yëpp Malika lañ bokk seen décision Malika la jóge askan wi fi dëkk deuxième bureau de vote Malika montagne gii la nekk bu ñu voté ba ngoon ci keesu Malika lay dem kon bu ñu xëyee xëy suñu juuti di fayeeku ñu xëy ñëw daaneel suñu duus doyu ñu ñëw di xëyeeku si di fayeeku si juuti duñu ko nangu tey te duñu ko nangu ëllëg te lum ñu jaral dañ ko jaral. arbitrage ANAT ñu ngi koy xaarandi.

a À leur côté, les habitants de Soufou Montagne estiment qu'ils font tout à Malika. Dans la commune de Malika, nous avons 13 conseillers municipaux. Nous avons deux ASC sportifs et culturels qui jouent au niveau de la zone de Malika. Donc nous avons des Badianougor, des acteurs communautaires qui répondent de la commune de Malika. 10 délégués de quartier qui sont ici dans la zone de, Malika. Ce sont les patins qui les intéressent, rien d'autre que les patins. et nous n'allons pas accepter ça. Étant donné que le découpage administratif de 1996 est tout contesté, l'arbitrage de la NAT est plus que nécessaire afin de faire baisser la tension qui règne dans la zone.